dindi mbalit yi nga xam ne moo nekk ci côte yi ngir wàññi pollution géej gi loolu mooy bëgg-bëgg association Grow Green Natangué ñi nga xam ne nag ñoo seq bii association mooy ay volontaire yoo xam ne dañuy yëngu ci lépp loo xam ne day sàmm environnement bi. lii continuer continuer de kese la quoi parce que moom la ko commencé à Yoff ànd koog maire Yoff bi ànd ko euh, waa ambassade des États-Unis ànd ko ministère ko koog organisation yu bari moom lañ defoon journée bi paase bu mag. que benn plage boo xam ne bu symbolique ci ñun parce que lépp fii commencé. kon bu ñu defee loolu ñoom tamit ñu am lu ñu euh, lu ñu dese li ñu war a liggéey vraiment ñu fekk leen si am na ñoom quoi mu nekk continuer boo xam ni plage bi lay topp soobee yàlla incha allah. environnement bu baax dafa am solo ci wérgu yaramu doomu aadama yi lool moo tax membre bi la association taxawala ab programme nettoyage plage yi ngir jële fi lépp loo xam ne day indi pollution maritime. parce que tey déchets yii nii bu duggee ci géej gi am na ay jën yu fa nekk jën yi bu ñu leen lekkee après ñun tam ñoo leen di lekk donc loolu dafay am impact si suñu santé moo tax dañoo war a di sàmm environnement bi te activité yu mel nii dafay baax pour ñuy sensibiliser ak changer comportement yi pour une meilleure gestion des déchets marins. sàmm environnement bi dafa nekk wareef bépp citoyen looloo waral yile volontaire di ñan na si ñëpp dugal seen loxo. c'est-à-dire que ñun dañu bëgg non seulement di def action mais action boo xam ni aussi day day day day day impact day am impact ci nit ñi day nekk action éducative yoo xam ni génération bi ñëw dañoo xam ne environnement bi comme sa kër la c'est-à-dire que lépp loo ni code bi la parce que dañoo xam ni géej il faut que région côtière beeg lépp ci la bokk c'est-à-dire que ñun lépp loo xam ni c'est-à-dire que dafa nuisible ci sur la vie des personnes ñun daf ñuy soxal quoi. programme nettoyage plage yi mu ngi soxal jamono ji région bu Dakar wante association Grow Green Natangué am na yéene yóbbu initiative bi ci biir réew mi yëpp.